pour ñu soppi réew am na lu si ñuul lu si ñuul mooy brèche bi fi ñuy waxee bël bi kooku mom si gouvernement Ablaye wad mom si bopam bël bi bu amul woon xam nga bël bi ay nit ci dé waye dee bël bi bu amul woon gendar yépp taxu nañu langue de barbarie taxu nañu hmm. maintenant président Ablaye wad dafa am ay solution yu mu ci doon envisager hmm. malheureusement avant muy paré ay solution ñu wàccee ko nguur gi ñu fi indi nag bu ñu demoon laaj président Abdoulaye Wade lan la ci namm dañ leen jox solution mais comme que nangoogu ñu dem ci moom du ñu amagum solution solution buy am ci bël bii président Abdoulaye Wade moo koy indi. ah yaakaar ah, def ñaata entreprise lañ fa yóbbu dañuy xëy daw ñaata yoon lañ ne travaux yi tàmbali. ñoo ngi koy ñoo ngi koy kii di. ana délai délai yi kañ la. ñoo ngi liggéey. 9 ans. ñoo ngi liggéey. ma ne 9 ans. yow d'accord ma élection jàll. kon léegi bu élection jàll ñuy def. avant élection présidentielle laaj nañ ñi ay 36000 hmm. bi élection yi jàllee nu ñu def hmm. gàddu yu yóbbu suulaat kàmb yi ña seen 36000 demoon ña ngay topp nit ñi ca xamuñu ña lañ joxoon seen xaalis fu ñu féete loolu kay am na ci am na ci pikin gi nga nekk ba léegi France France dal xëddeen ñi ngay jàkkaar lool ñaar ñu doy waar muy ki fi nekk euh, maire bu ndar ak keneen ki nga xam ni moom lañ tuddee maritaw ñaan di candidat léegi wax nga pile ou face da nga bëgg wax ni ñoom ñaar ñoo bokk. benn lañ. lu tax nga wax ka. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay moo tax. lu tax nga wax ka. ñoo bokk ba ñoo bokk ndey. am na lu tax wax ma lu bokk ndey. mooy ñoo bokk APR ñoom ñaan ñëpp ay militant wu APR lañu. Hmm. ñoo bokk baay mooy ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar mooy seen coalition. ñoo bokk ndey mooy ñoom ñaar ñëpp Macky Sall mooy seen kilifa ci politique. ñoo bokk baay mooy ñoom ñaan ñëpp il bénéficie du décret de Macky Sall. Macky moo def décret def Mary ñaan Niane PCA Petrosen Mary euh, Macky Sall moo def décret def Mansour Faye ministre ñoom ñaar ñëpp carburant bi ñuy utiliser Macky Sall la leen ko jox oto yi ñuy dawal Macky Sall moo leen ko jox te ñoom ñaari itam ku ci am ndam Macky Sall nga koy jox doo ko jox Ablaye Wade doo ko jox keneen kon kay ñoom lan moo leen wutale. mais kii dafa nekk ci coalition nee na. parce que xam nañ ne Mansour Faye nit ñi bëggatuñ ko ñu bëgg ñi ko mere ñëpp ñu woteel Mary Teuw Niane waaye dóor yi ñu Mansour Faye di dóor bis bu ñu woteelee Mary Teuw Niane yu ko raw la ñuy dóor. ca ñooñu ñi yewu ci dégguma wolof bi nga wax de man ni door yi sur fay door waa Ndar biñ ko denké maire bi ak légui waaw ci ñàkk topato seen ité waaw bis buñu falon faloon ci xamnaan du am ba fal marito ñaan lu ko yees la am hmm pile ou face la ñom ñaar kon day gëna metti pile ou face yow da nga ni lolou day gën metti kon kon dara day gën metti day gën metti kumba tamel kumba tanewul dëggan solution moy delu ci Ablaye wad ak xalaatu Ablaye wad ak yorinu Ablaye wat gestion Ablaye wat est-ce que waa Ndar tey jii nañu pour delluwaat si Ablaye. tay lañu gëna waaw kay loolu mom je te donne la confirmation ñom ñepp tak nañ sen dik ñima ci gis ak ñima ci gisul. bu ko ne solution bi moy Ablaye wat Wade. bëgguma